asaka mu doon koor nag ak yar farata farata la li ko tax a jóg mooy yow mi nga xam ne nii am nga doole du sa ngóora du sa jàmbaarte du sa xereñ ci li nit ñi am rek nga am waaye wërsëg bu yàlla bu ne yàlla dafa bëgg bisu ko rete bu kenn fu mu rakki bu kenn jaaxle bu kenn sonn bu kenn ne moom nekkul ci feet يجب لونه لما حدين بلي مسكينين كسبت بل المرأة تجيب بوني أمور ليه موي جيب له أي مسكين lan nga ci déggee mooy soo génnee li la war ba pare defal ba def li la war ndax li taxoon yàlla santaane mën a am yàlla santaane mooy zagaay moom tam koor pour nga génne ñaari kilo rek dina jël tuux ni xorran musliman fi yow mi ndax koor gi nga xam ne julit la te ñàkk mu doylu ci bis bi kon lépp loo mën a yokk ci loolu rek pour mu doylu nga ci awaale ñun ñëpp duñ ko génne ni mu waree loolu waral miskin yu bëri dana am ñu génne yow da nga génne ba pare mais ci taxoon yàlla santaane amut mooy ñu bëri génne wuñ ko wala dañ ko war a génne génne wuñ ko dañuy jox ci bis bi kon su ko mi yàlla wërsëgal fexeel ba def wërsëg bi foofu am am natt la mais ñàkk na fexeel ba examen bi la yàlla di yu jullit bi nga mucc ci mais bu mbew bu ne mën a yàlla wërsëgal ci loo xam damay wax ne kenn ñàkkut ku ñàkk ku ne rek am ci wetam moom moo lekk am su fekkoon ne asaka yi génn nañ ko ni ko yàlla santaare su fekkee dimbalaate woon ne ni ñu war a dimbalaate kenn du ñàkk waaye benn nit mën naa jeex ci alal def ko ci banque gis dëkk noor baa nga leen di xiif moom lu amul benn problème lu ko neex lay dundee kii ci wetam di xiif di rafle di sonn te dimbalewu ko xam nga ne kooku moo lekk alal baa te bis dina ñëw yàlla laaj ko kullukum mas'uulun wa kullu kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi yonent bi ne kenn ku nekk sàmm la ci yéen ku nekk daañu ko laaj lan doon sàmm nu mu ko la yàlla jox sàmm nga ci lan la la yàlla ci yàlla jooju nga xam ne moom la yàlla teg sa kaw sa loxo mooy wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fii alal ji nga xam ne moomu leen yàlla ko wax ne moomu leen ji man maa leen def ngeen wuutuma ci alal jooju alal ji yàlla yàlla yàlla leen fi mu ko ci la amat bët ku neex nga war a xool yàlla moom moo la jox li mu jox fexe ba miskin bi bu mu yëg coow na bu mu yëg ne moom bokkul ci nit ñi bu mu tumurantee ci bis boobu nga xam ne bisu bisu korite fexe ba jël sa alal dimbale miskin bi nekk sa boo korite neex su boobaa bu kontaanee yàlla dana kontaan parce que yàlla baax na ba wàccee boppam wàcce waaye miskin bi سبحانه وتعالى يغلب نفسه يغلب إن الله غني عن العالمين يغلب فتوى وليس بالإثم صحبه الدار فيروح للمنزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أنا كويلة بليان أنا كنت مالي بليان joxal miskin bi rek boo joxee miskin bi rek li mën la yàlla xoolal yërmande yàlla ci jàmm nee na li nga defal miskin bi lebal ko ko mën nga ko man maa koy fay borom bi ni mu yërëmee ay jaamam yow it fexeel nga yërëmee noonu waxuma sax sax bëggoo ko ko lor sa oto sax bëggoo ko ko xoos sa njaboot bëggoo ko leen laal rek am problème ak sa borom bëri na lan ko def yàlla bu ko def yonent yàlla Moussa boo ko Firawna tooñee daf ne yàlla ne falammaa aasifuunaa intaqamnaa minhum fa agraqnaahum ajma'iin ba ñu métitale ana ko mën a métitale yàlla waaye ba nga métitale jaamu yàlla bu nekkal yàlla rek yàlla nga métitale ba nga métitale jaamu yàlla bu nekkal yàlla rek yàlla nga métitale bu leen xeeb jaamu yàlla yi su ngeen leen laalee laal ngeen yàlla su ngeen leen dimbalee dimbale ngeen yàlla te mooy dimbale ngeen jëlee yàlla mënoo ko dimbale direct mais ci jaamu mi ngi koy dimbale yàlla mënu koo direct mais ci jaamu mi ngi ko koy defale émiri màkk yi ba ñu